noonu la ñu xalifa xalifab Cheikh Ibrahima Dior sëriñ Mbaye Amar di nuyu xalifab Cheikh Mouhamadul Misbah sëriñ Maam Tawfeex Amar ak mboolem rakkam yépp di leen ziyaare di ñaan sama yàggal leen fi lool ñu yàgg ci seen ginnaaw ànd ak ñoom ci liggéey Seexul Xadim bi ginnaaw loolu bokki jullit yi dañoo teew fii tey am ay kàddu yu bëgg leeral ci xew-xew boobu am na mën nañ ni depuis ci bi nga xamante ni bii Serigne Gana Messere génn na wax ci quartier général TFM waxtaane suñu maam Cheikh Ibrahima Dior Amar te mu jël ci ay sources yu leer yooyu ci biir kër gii la ko jëlee muy kër Cheikh Mouhamadul Misbah am ci nag ay gone yooyu dañ ñoo jóg wax ci na wax ju ñaaw ba génn ca loo xamante ni moo waral tey ji suñu jataay tey ñu koy leeralaat ah kooku génnoon nag liñ ci wax mooy déclaration yi def ñetti yoon la génn ñetti yoon yi génn yëpp yëg nañ ci ni def na ci ay njuumte yu bari ba tax na ñun suñu génn tey ak suñu wax tey ay leeral a ngi ci ñetti tomb lañ fas yéene tënk suñu waxtaan incha allah tomb bu njëkk bi mooy leeral mooy leeral ki génn ñetti video yi nga xam ne génn na ko mu toll ci vingt cinq minutes douze secondes toj-toj yi nga xamante ni wax na ko ci nga xay ni benn fët bu ci nekk yóbbu na loxo ci gémmiñ ñu fas ko ko yéene leeral ba xamal ko ni maanaam sa wax jooju yu bari na ci ay njuumte yu mag a mag yu ci nekk yoo xam ni mënoon na koo bañ a dal ñaareelu tomb bi ñu fas yéeni ko tontu maanaam ci ay laaj yooyu dañu ko jox te laaj yooyu sax laaju ko ngir jëmmi suñu borom subhaanahu tabaraka wa taala wante da ko laaj ngir tiiñal as gor ngir tiiñal ab jullit ngir sës ko ci barab ba duutu mën a dellu ginnaaw waaye sama nag dafa yaatal yi mbiram lool yaatalu xam-xamam lool ñu fas ko si yéene indil ay addil la ay yu wér ndax dañu ne ma si jox ay tontu yu leer ak argument danañ ko argumentel incha allah ba ab dars sax lay doon ci moom am njàng lay doon ci moom laataa mu doon nag ay weranteek dàggante ñetteel bi nag mooy leeral ko kan mooy cheikh mouhamadul misbaax mi nga xamante ni bii ca mag ña la liggéeyal ay way wayjuram liggéeyal sëriñ tubaa cheikh mouhamadul bachir ba am ngërëmam kan mooy jëmm ju sell joo ji nga xam ne lay jéem a diingat ay waxam ba xew-xew yii xew am fekk ko ci walla boog ba eh, njuumte yu bari yii mu def yëpp fekk ko ci kon ma jublu ci njuumte yi nga xam ni juum na ko sëñ bi yow bi nga génnee ci say vidéo yaa ngi génn ci sa ñetti short yëpp mi ngi nekk 25 minutes yu toftal 12 secondes 25 minutes yu toftal 12 secondes def nga ci 25 photos ñaar fukki photo juróom yooyu benn fot bu ci ne yóbbu na loxo ci gimiñ dama jàpp ni doomi kilifa doomi soxna ju toll ni yow bu demee bay dajale presque di waxtaan ak ñoom walla muy wax kàddoom di génn di génn néeg ba mu koy waxee wala sax ci biir néeg bi muy waxee xanaa loo jàkk ñàkk ñàkk maanaam ak njàng war ngaa fexe ba ñaar fukki minute ak juróom moom boo koy wax boo si defee cinq fautes dañu lay wax ni la minute bu nekk am nga benn fot ci doomi soxna joo xam ne ëllëg da ngaa war a jiite ay nit ëllëg da ay nit dañoo war a topp sa ginnaaw nga leen di def loo ñuy def man jàpp naa ne loolu njuumteel loo xam ne loo war a seetaat sa bopp la bi si jëkk mooy sa vidéo bi nga jëkk def dangaa génn ubbee ay saaga ci nit koo xamante ni bii Sëñ Tuubaa mooy ab xëyam mooyum gontam am nga métier yow man am naa métier waaye moom daa jël Sëñ Tuubaa def ko muy métier am nga ubbee ko ay saaga saaga yu ñaaw ci internet bi mënoo koy weddi parce que dañ ko enregistré yow yaa ko def dugal ko si internet bi te saaga xanaa loo gàtt-gàtt war ngaa dégg ni sëñ bi ni wala taxul li ahadin kazabta aw qulta gayra xaqin aw aqtata bul wax nit fen nga bul wax nit juum nga sax walla sax dangaa dangaa juum sëñ bi dafa ni bul ko wax nit waxoo dëgg wala fen nga wala li nga wax du noonu sax sëñ bi dañu la bul ko wax nit am na nu la jàngalee noon nga ko war a waxee nit yow boobu nga ubbee lii lépp nag ci erreur yi nga def la mu ngi toll ci cinq fautes danaa la ko résumé nag daal ci tànn ay tuuti leeral la bi si njëkk mooy da ngaa giñ bi nga bi nga nee gànn waxoo dëgg ba pare da giñ ci yàlla ci ñetti giñ yi gën a foor mooy billaahi wallaahi taalaay te war ngaa xam ni ci charxu risala dalay wax ne wal lil kasi bi mutaamidan lil kasi bi aw shaakan fa huwa aathimun wal xaalifu mutaamidan lil kasi bi aw shaakan fa huwa aathimun ku giñ tay ko ci aw fen wala mu nekk am lënt li ngay giñ nekk lënt leerul nga doog koo giñ yow da ngaa bàkkaar kon yow bàkkaar sax fekk na la sa wax ji bi ci des it da ngaa weddi waxi sëñ baa mi nga xamante ni bii kilifa la mag la mën laa maanaam doomam rek mën laa jur nga wëlbati ko weddi waxam te yow tuut nga si weddi googu ca biir wax mooy taxit demaat nga ba ca biir nga dëggalaat waxi sëriñ bi kon muy si ñetteel erreur yoo xam ne nga ko weddi commerce bi nga xam ne moom la suñu maam Ibrahima Joor doon def ba Sëñ tubaa dimbalee ko ca xettilee ko ca danga koo weddi te waxi kilifa la yow fekke woo ko ke ko nettalee la mag sa baay la waroo ko woon a weddi demaat ba ca biir nga waxaat ni sëñ Misbaa du ma weddi ay waxam du ko benn waxam laa dul weddi da koo ko jëkkee weddi boo ko weddul woon lii yëpp du xew bi si desaat mooy dem ko ba si biir nga ni beneen version bu ñu am ci xisab Cheikh Ibrahima Dior duñ ko dindi waa lan moo tax Gana joxe version bu jógee ci biir kër gi nga dem di ko dindiwaat loolu tam ci sa njuum tey la nee nga amuñu problème ak waa kër Sëñ Misbaa da danga am problème ak ñun nag parce que Sëñ Misbaa du sa morom mooy këll këllee muy wax nga di ko jéem a dindi amul si genn kilifa ci ñi nga def ay kilifa ku ci masa taxaw weddi waxi Sëñ Misbaa du ci xam-xam du ci at tuumaal nga Sëñ Ibra Dior tuuma lu mag nee ngi dafa bind ci ay fànn yu bari maa ngi dañu liñ xam boo ne bind ci fànn yu bari juum nga juum lu rëy te yaa ngi koy tuutal tuutal bu mag ñaata kilifa ñoo jóg bind ci xam-xamu tawxiit ñi bind ci fiq ñi bind ci tasawuf ñi bind sax ci naxu ak naxu ak or ak ak bayaan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bii ci wàllu mantiq la ak yeneen yow Cheikh Ibrahima Dior bindut ci lool gisagun benn téeréem ñun bandale gëstu ba léegi fu mu bind ci ci euh, tasawuf wala mu bind ci fiq wala mu bind ci tawxiid nga ni dafa bind ci ay fànn nit mën na laa poser question ni damaa soxla benn charx bu Cheikh Ibrahima Dior boo xam ne da ko saraa ci téere fiq wala tawxiid yi te booba yaa ko yóbbe loolu bis des nee nga ba ko Sëñ Tuubaa doon wutloo mawaahibu ladun yee mawaahibu ladun yee <laughs> maa ngi jéglu moom ala ci ree dafa man dama koo xamut la du mawaahibul laduniya loolu la waaye boo nee mawaahibul laduniya ku dem ci internet bi tàppe mawaahibul laduniya doo gis dara loolu ci téere erreur yi la bi ci des salaatu ala nabi gi ñu defal suñu maam nga xayante ni bii Sëñ ci la ko suñu maam nga xëy ni ñi ngi ciy def ay secret di ci gis ay mbir yu mag ba kenn ku ci nekk ci noonu say taalibee ngi lay woo daal di la ci laajub lim ngir jaar ca ñoom xetli koo ca hmm? yow da nga koo yàq xanaa bañ gi nga bañ salaatu gi laa yaakaar ni moo tax salaatu gi nanguwul sa làmmiñ allahuma salli ala sayyidina muhammadin nga wax mi ngi nii muhammadin nag damaa yaakaar ni ab gul jullit lu mu ñàkk-ñàkk aw jàng li jëkk a jiitu moom ginnaaw lislaam alquran dafa wax dafa digle sama borom digle ni julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waroon nga koo man defoo loolu ak yeneen ak yeneen yooyu du xaj ci micro waaye nga xam ne rek sa cinq minutes yaa ngi def vingt cinq fautes am nga benn fot ci minute bu nekk loolu matoon naa bañ a def rëy na lool traité nga ñu nag euh, euh, traité nga ñu nun façon traitement bu bu ñaaw boo xam ne ñun yarewuñu loolu nag bu dee wax ju ñaaw ñun xam-xam lañu jiite ci li ñuy def aku bi yar bu mat sëkk xëy na duñ la dugg ak yow ci loolu parce que nit itam doo ko tontu ci ni muy waxee tuumaal nga euh, sëñ Misbaa ndax boo taxawee weddi xisaam bi rek da nga kaa tuumaal ni kon li mu wax saxul muy 25 foot yooyu du ma continuer ak yow di la ko liiral waaye ñi koy déglu ak yow sa bopp da nga yëg ni juum nga ci njuum te yu mag a mag a mag a mag a mag loolu ba ci ni nga nettalee xisab gànnaar bi bi nga nee Cheikh Ibrahima Joor bi muy dem ci yoon wi ba tëlee jafe am jafe-jafe giléem gi naar bi daa ñëw yësal ko am lum ko laaj da ngay dafa yëkkati lam ko laaj jox ko ko ci vidéo bu njëkk ba loolu nga wax bi mu ko ko joxee mu dem yóbbu ko gànnaar xisam ñaareel bi nga ni bi mu ko ko laajee da ko ne yoruma ko fi waaye bu demee sëñ paate sama maga nga fa dana la ko jox waaw loo def ak ñaari njuumte yooyu kenn ku ne xam na ni maam paate moo fay gëléem nga ba mu demee ci sëñ Touba. bis des mooy yow salaatu ala nabi gun jox suñu maam ñu kiy jëfandiku ñun ñëpp da ci gisi xéewal nga wëlbati ko bëgg koo weddi ba ba wax ci loo xamante ni moo indi coow yi am yépp ci biir euh, internet bi kon loolu mooy erreur yi nga jëkk def moom laa la doon résumé ci lu gàtt rek xamoon naa gën a yaatu waaye damay bañ mu xat ma ñëw ak yow nag ci ñaari laaj ñetti laaj bokk yi nga xam ne da ko koo laaj te jàppoon ni amuñu ci ay réponse laajoo ko li wàcc laahi tabaaraka wa taala laajoo ko ngiru mbokk waaye laajoo ko ngir bëgg a xam kese waaye da nga laaj ngir tuumaal asgor wala tiiñal ko ba sës ko ci barab ba duutu mën a wattandiku arrière te ni sa borom xam-xamam dafa yaatu yutil xikmata may yasha ku ko neex lay jox xikma ma ñaari laaj yooyu nag dama laa ci tontu mooy da ngaa wax sëñ Ibra Joor da nga koo bokk si tuuma yi sax mooy da nga da nga koo juddul 62 te 61 lañ gis ñun xattu yaddam lañ yor mbindum loxoom mu ni 61 lañ ñu lañ ceef bokk na ci preuve boobu sax mille euh, sëñ Basi sëñ sëñ Ibrahima Joor bu fekkee dañ ni 84 ans la dund ak 1945 euh, la fi jóge waaw mi ngi juddu 61 jóge fi 45 léegi 45 boo ko génnee ci boo ci dokk yokkee 84 ans da yóbbu ci 61 ji léegi laaj bu njëkk bi nag ci laay ñëw ak yow ma nga déglu ko ma leeral la ko bu wér ndax da nga da nga ñu siy tiiñaal ne ay addi yu wóor nga ci soxla sëñ Ibrahima Dior yaa ko jox 22 ans ni 22 ans naka la ci nit mën a juddoo jàng ci wala boog toog juróom-ñaari doo ko dal jàng jàng ba noppi jàng xam-xam dem commerce perte ci ba calcul ko ba teg 1500 léegi bu ñu la fekk see ci question boobu dañ la ciy jox lu leer ba sa bopp ubbee ko pare te ñun ànduñoo yow sax ci loolu même bu dee danoo d'accord na yow ci 22 ans yi sëñ Ibrahima joor bu fekkee 22 ans la am toog 7 ans doo ko doo ko dal waaye lan moo tax nga bëgg koo jombale mokkal alxuraan ba mu daataan am ci juróom-ñaari atam mooy nit ñu baax nañ koy def Cheikh Ahmad Tidiane Sharif ci septembre la mokkal alquran karim usaamatu usaamata ibnu zaydin bi muy jiite xareb bi nga xamante moom la ko yonte bi sallallahu alayhi wa jiitaloon ni ko demal nga xeex yi boobu Ababacar a ngi ci Omar a ngi ci Ousmane a ngi ci Ali ngi ci ay baayam suñu maanaam yonte bi sallallahu alayhi wa jël raawe jox ko ko jiital ko ci kanam te boobu mi ngi am 18 ans waaw léegi ki am 18 ans mën a jiite xare ki am 18 ans commerce perse yow indiwul ab recette ci commerce ba perte la ci jëlee li tax nga war maanaam lu mu cuune cuune war naa mën a perte nag yow niwul daf indi bénéfice dafa perte lañ wax dangaa wax ni Serigne Touba 83 84 la bàyyi ko Mbàkke Kajoor ni dellu si waatu fi ba 95 wax jooju dindi ko ba mu nga tegaat ko nee que ci la jot nag rabbi ashaabaka bil himmati wala tu rabbihim bi dar si faqat man na faa jógee Mbàkke Kajoor dem de waaye da nga ko war a dindi ndax boo ko dindiwul danga nga joteeg ñeneen sax ñoo xam ne ñi ngi màggal ñëw Sëriñ Tuubaa tubaa yow da ngeen koy xañ ndax boo ne 83 84 dellu siwul Mbàkke Kajoor ba 95 waxuma la nun waaye danga nga joteeg ñeneen ndax Sëriñ Tuubaa Lat Joor 86 fekk na Sëriñ Tuubaa Mbàkke Kajoor léegi kon xanaa kon Sëriñ Tuubaa 83 84 la fa jóge kon nu ko Lat Joor di fekkee 86 Mbàkke Kajoor benn Sëriñ Tuubaa ñëw na Adulaay 87 waa Adulaay kon nuñ def ak seen gan googu Sëriñ Tuubaa delluwaat na Adulaay 92 jaala ji Cheikh Mouhamadou Lamine léegi nag euh, déedéet Sëriñ Tuubaa delluwaat na Adulaay jaala ji ki sancoon Adulaay waaw Cheikh la Sëriñ Tuubaa def kon ak date bi nga xam ne 83 84 la jóge jógee Mbàkke yor te dellu fa ba 95 tam ñu wax la Lat Joor 86 wax la Mbàkke wax la Adulaay 87 waxaat la 92 dellu na Adulaay waa léegi yow Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé bi mu koy jaale ji Adulaay 92 yow kon dikk gi sëñ tubaa dikk sa kër maam sax danga ko bëgg a far ndax yow sa sa sëñ sëñ tubaa 95 gi nga wax ne moom la ñëw njaar da ñëw ko fa 92 la fa ñëw jàppal lool ndax daa jaale ci aadulaay sëñ Mouhamadou Lamine Daraame jóge fa dem gëti ndonga jóge gëti ndonga laajte yoonu njaar nañu tegtal ko ko mu ànd ak maam Cheikh Anta ak ñëw sëñ Massamba Diop fekke seen a ngan ga am na ñu wax ne sëñ Massamba sax 91 sa wàcc ci laxasaay ñëw njaar njaarnde 92 jóge njaarnde dem ngalik xumma moom njaarnde ñoo sédd ñoo séq tali bi jóge ngalik dem faas Touré gu sëñ Siisa Touré jóge Faas Touré bu sëñ Cissé Touré dem Mbàkke Kajoor li sama borom Mbàkke Kajoor la wax mu delluwaat Mbàkke Kajoor kon 92 ngay jàpp ni la ñëw Njaarnde jëlal sa calcul 92 bu fekkee moom la sëñ Touba ñëw Njaarnde sëñ Ibra judd 61 1861 boo ko mooyee ci 92 mi ngi lay jox fanweeri at ak benn bi ni jox maa Alaaji Malick sëñ Tuubaa di ko ñëw njaarnde booba Maam Ibra mi ngi am fanweeri ak benn fekk na ko mu jàng ba jàng xam-xam bay commerce ba ne ci diggum njaayam 92 ba 95 taxriirul aqwaal day wax ni sëñ Tuubaa mësul deñ di baagante diggante Kajoor Jolof ak Bawal diggante 88 sax moom la lay wax da lay ni la 88 gi mu sañ Tuubaa ak Mbàkke diggante boobu ba 95 gi mu war a demee ci géej gi sëñ Tuubaa mosul deñ di baagante di def tuur ci diggante yooyu mooy Kajoor Bawal ak Jolof ngeen yow sëñ Tuubaa da nga rek benn béréb ni génnaatul foofu duggaatul benn yoon léegi 1861 mooy 1892 boobu day fekk sañu bi day am fanweeri at ak benn fekk na muy commerce diggante na 92 ba 95 gi nga xam ne moom la delluwaat la doon wër Sëñ Tuubaa ñëw na fi Mbàkke Kajoor diggante boobu ci la moom mooy fi ko maam doo nga jàppe ci loxoom yóbbu ko ci Sëñ loolu sax mooy deuxième laaj bi ndax premier laaj bi rek mooy Atimaa Ibra laa doon xamal ni la fanweer ak benn la am fanweer ak benn nag nit moom loo ko xeeb xeep war ngaa xam ni mën na fee jàng jàng fi bu liggéey commerce fi perte fi da ngay bàyyi xel ni Maam Ibra kenn néewul dafa indi bénéfice bu bu bu bu xajut ci nopp dañ la dafa perte perte gën a yomb li si def ci njaay nag nga xam loolu ñun ay jaaykat lan de surtout commerçant lañ sëñ Ibrahima mooy suñu maam loolu duñ ko bañ sëñ Tuubaa ko xettali sinon kon duñ am kenn kuy fóon suñu loxo loolu jërul bañ sëñ Tuubaa kum xettali sa maam da nga ko war a damoo sago ko salaatu ala nabi googu man ay nit a ngi may woo ma leen koy jox ñu ci defu lim bi ci gis seen bopp te sama bopp laa ko tàmbalee man noonu nag dañooy jàpp ni sëñ ku commerce perte fanweer ak benn bi nga koy def yow fekk na nga am ko nga jëla ca perte boo fa nokkul lu war a yóbbu loxo ci gémmiñ parce que ay nit ñu ko gën a tuut dong ñoo ko doon def te Sëriñ Tuubaa da bàyyi xel ne bi muy ñëw njaarnde du jóg ci lu dul ndigal bi muy ñëw njaarnde dafa fekk sama borom jox ko ndigal mu doog a mën a ñëw ci Maam Mor Guma Binta ngir set ga ngir sel ga ca moom ndax Sëriñ Tuubaa du seeti ku setu dëgg dëgg set Sëriñ Maam Mor Guma Binta nag bu mënee jur doom xanaa doom ji war a mën a doon dara dara daray mbaax ci moom war a man a mokkal alxuraan ci fanweeri atam balaa mu am fanweeri at war a mën a jàng xam taalibe yi ñaam bi maam ndonga ba muy def loolu maam wér ba muy def loolu amul taalibe mooy sa laaj bu njëkk ñu ñëw ci deuxième laaj bi mooy danga ni fan la maam ndonga jàppe ci loxob sëñ Ibra Joor yóbbu ko Mbàkke Kajoor loolu dañ koy nangu muy lu wér maam ndonga du du ab jàmbur magam la ñoo bokk nday ak baay jëkk ko ci sëriñ Touba sëriñ Touba def ci moom mu mus ko laataa maam maam Ibra di ko mos ku la jëkk reer nag wala fi nee na dana la wanu moo tax ba mu commercé ba perte tubaab bi di ko wër xamul fu mu jëm boobu joxagul boppam sëñ tubaa ku joxu sa bopp sëñ Touba ñu la tuumaal jërul weddi maa yibra des na leneen sax mën ngaa dégg leneen loo xamante ni bii moom boo ko déggee jërul weddi boobu joxagul boppam sëñ Touba de bu mu ñëwee ci maam Ndonga mu fompal koy rango ñam jàpp ci loxoom yóbbu ko ci seex seex bu baax mooy seexul yim fekk ko Mbàkke Kajoor jàppal kon 92 95 la ko maam ndongo yóbbu ci sëñ tubaab mu dox digganteem ak njàqare loolu ba jox ko salaatu ala nabi gi daa delluwaat nag njaxate continuer di commerce xéewal di ko fa ñëwal ba mu fay bor ye yëpp ba muy fay boree bay jeexal fekk na sëriñ bi dem na 95 romb na mu dem ci tukki bi ba ñëw ca la ko doo ko demee gànnaar fekk ko fa jébbalu ji loolu mooy ñaari laaj kon jàppal 92 95. Euh, ñetteel bi laaj mooy maam ndonga mi nga wax ni bëgg cee wax ni daa jébbalu ñaari yoon ba laaj ci question boo xam ni. lu simple la maanaam maam ndonga mooy woon taaw maam Gumba Binta moo leen magoon ñoom ñëpp ak njëbbalam am na version bu Serigne Misbaa wax suñu kilifa nun nag dun koo xay ni version bu ñu dégg weddi ko de yow yaa ñuy toppandoo di wax loolu waaye fekk ne yow da ngaa weddi ba pare sëñ maam ma am na version bu mu ci wax sa jur te téye nañ ko weddi wuñ ko fii jóge xel ñu ma ngay jëm Pataar. waaw mu na su ma ko su ma su ma xamee bu nekkee Pataar dinaa fu mu fu mu nekk dinaa ko fa fekk tey ji hmm. ci moom ndax ba ma ko gisee Mbàkke hmm. bu ma tëddee mu def ab géej góor ma lii sama am ko nettali mu def géej góor ma waaw dama koy fekki pataar jébulu ci moom dam pataar ne ko ne ko ne ko man de mbàkkee damaa bëgg a jébulu te am nañ ma gàllankoor mu ne ko lu mu doon mu hmm. koy mën a wér bi boo ko yoree boo ko bàyyee da ngay waaw mu ne ko luy wérd bi mu ne ko xalaatu allah nabi la ak turi yàlla mu ne ko sañ Tuubaa ne ko ku bàyyi yàlla bàyyi yonent bi mooy def mu ne ko lap mu hmm. loolu la mooy gàllankoor bi waaye yow bàyyi woo yàlla bàyyi woo yonent loolu mënu laa tey jébbu waaw maa ngi rëjootoore jébbu beneen version ci sëñ Ndonga da dem yow seet ci ay xalifaam képp xalifaam wala nga dem ci njabootam nga laaj leen ñoom seeni version beneen boo mën a daaj ñaar yi waaye ñun loolu lijjantiwuñ ko parce que nekkul juge bi war a tax nuy wax juge bi la ko commencé ca maam ndo ci maam Ibra waaye du maam ndonga kon nga jàpp loolu mooy sa ñetti laaj yi ci des it mooy paataar yow da ni ni nga nettalee maam Ibra ak njëbbalam ba indi ko gànnaar yow yaa wax ni sa baay la netti loolu de mu jëlee ko ci baayam waaye nun li dégg ci sëñ maama muy lu wér nga xëy ne moo ko wax ñu dégg ko sëñ maama moom paataar la wax sëñ maama nu mu ko waxee nag nii la ko waxee paataar jooju la wax ni fa la jébbaloo léegi nag gànnaar gi yow nun moom nga daan dégg nu koy wax te wëlbatikuwaat nga wax ni sa bàyyi la ko nettali kon demal lijjanti loolu ak la nettali gànnaar ak la nettali paataar ñun ñoo la ko te maam maama ko wax loolu mooy ñetti laaj yi nga xamante ni yow laaj nga ñu ko bis des nag tuumaal nga nu nun traité nu ay échantillon ay échantillon xam-xam ndax sëñ Misbaa ko dégg xam ne boroom xam-xam la te ku yaru njabootam te ku leen jàngal ba jàng jotee la traité nga ñu ay gone yu ndaw yu amul xam-xam yu yara def gone yu ndaw yooyu nag ñoo génne cinq faute ci sa vingt cinq minutes yi nga génn faute bu nekk yóbbu loxo gimiñ leeral la ko tey jii nii nga war a wattandiku nag bañ laa ndax am na lu bon bon ñu topp sa ginnaaw ah, kon loolu mooy woon liñ la ci tontu ci wàll woowu ci en résumé nag dana ñetteel bi tomb mooy dana la wax kuy Cheikh Mouhamadul Misbaa mi ngay jéema a di nga taka weddi mm, leeral la tuuti ci moom ba ëllëg nga jëlee ci leçon bi si desit mooy duñ continuer di waxante yow ngay wax ñu lay tontu ndax ba nga waree jàng jàngoo kon doo wëlbati ku bëgg a jàngee ci sunu kaw bu la ko jaralee da ngay ñëw ci kër gi loo bëgg xam nga ñëw ba si noonu laaj nu ko laaj nu ko ngir yàllaa ko bokk ñu xamal law muy sa diine nag mooy si wàllu bokk bi loolu la si tane laa biré la ko waaye nekkunu ci presse bi nag ñun di ci waxante yow nga naan ñu cocc ñu naan la gel amaanaa boo ñu laajul woon question yi sax doon gis waaw wasalaamualeykum wa rahmatullah ma jox sañ paate mi mu àggale ci allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan taqdi biha dayna ibrahim yaman ya fi minkaliya rabbaahu salli ala man ismuhu misbaahu ginnaaw bu ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul di ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général dem mourides yàlla yàggal ko fi loolu te may ko wér noonu la ñuy nuyoo Sëriñ Bay Amar mi nga xam ne mooy xalifab seex Ibrahima Dior di nuyu bu baax di ziare Sëriñ Maam Tawfeex mi nga xam ni mooy xalifab Sëriñ Misbaahu ñaan yàlla yàlla sàmm leen te guddal seeni ñëw rek di wax xam naa man sax damaa xaw am kersa ndax ñaar fukki fot ak juróom as gor su génn ci télévision ñépp di la seetaan nga ni sëtub Cheikh Ibrahima joor la ñu ni maamam boroom xam-xam la woon nga yëkkati sa kàddu juróom ñaar fukki juróom ñaar fukki minute ak juróom tey laa a gis te yaakaar naa ñu bari tey ko ma a gis man dama yaakaar ni daal kii dafa jar bokk yëpp dajale ñu xool luñ ko jox lëf ngir mu noppi ndax am na ñooñu dañ leen war a fay ñu wax waaye am na ñooñu dañ leen war a fay ñu noppi ndax gimiñ bu dee bu waxee waxu toj toj noppee ca gën te ngóor si saa su waxee rek loxo dem gimiñ ndax dama seetlu ni li sëriñ bi wax léegi première discours am ay saaga la génn tifaar saaga wax saaga saaga saaga yow sa image naturelle bi nga moom mooy sa première image yi nga jëkk a génn deuxième image vidéo bi soo nga def audio nga def wax jooju mooy say wax troisième bi moomoo ca dara dañ laa jël wutal la fa fauteuil teg la ci xottil la mbubb parce que xam naa sa yére ak moom bu maw solal la ko wutal la kaala tegal la ko takkal lay lonet bind discours di la ko jox discours bi da nga ko doon ijji ñëpp xam nañ da nga ko doon ijji parce que jàngoo xamoo dara mais li gën a doy waar mooy sa gàcceeg tey gii bokk kook ñetti paa yi ne ci sa ginnaaw di la bindal di la jox xam nañ leen bu baax dañ leen dul tudd ñooñu ay ennemis Cheikh Mouhamadoul Misbah lañ moom rek lañ bañ xam nañ lépp dañoo ànd ak yar ak teggi nag ni pat parce que ñoom keroog Cheikh Mouhamadoul Misbah làqoo Serigne Mouhamadoul Mountakha ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadoul Bassir ak njabootu Serigne Touba ñu ñëw taxawe ko jébbal ko boroomam ci bisu altene fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi nga xam ni ci la fi ku tedd ki Seexul Xadim bàyyi ko Serigne Misbaa nuróole ak sëriñ bi lépp nuróole ak moom fukki fan ak juróom-ñett ya nuróole ak moom altene ja ba ci at ma benn fanub ajjuma la Serigne Misbaa benn fanub ajjuma la at euh, at moom nga xam ni. yàlla daf koo dimbali ci njëlbeenam la Cheikh Moussa Ka wax ci Cheikh Ibrahima Fall ni mas nay xibaar ak njëbbuloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bàmb moo la moom rasi ko jox ko say pexe sëriñ Miss Baaxu ci tuut tànkam la def listixaar di laaj boromam sa ban jaam nga gërëm bu nga xam ne bu ma gërëmee ma am ngërëmul yàlla suñu borom wan ko seex Cheikh Mouhamadul Misbah ca malakut Cheikh Mouhamadul Bachir ca Malakut moom Serigne Misbah suñu borom wan ko Cheikh Mouhamadul Bachir ca Malakut joxoñ ko ko ni ko jëmm jee bu la gërëmee gërëm naa la keroog 1800 année 50 yi ci année 50 yi bi Serigne Misbah di dem di jox boppam Serigne Bassirou Mbacké nam ko gisee woon ca kaw noonu la ko gisewaat fii ci mul ko mu tarbiye ko tarxiye ko tasfiye ko marale ko ak boroomam jox ko cëru boppam bu nga xam ni ñun am na lu doy sëkk ci wax daal kay boo amee maam ju baax mu def lu baax te sëriñ Touba mii may ñëpp may ko xeetli ko ci ay jafe-jafeem il faut ñu doon ay gor di fàttaliku loolu ndax ku fàttelu la fal booy follee ko dalay bett mais loolu am Serigne Misbaahu mii lii ko ba Basiru jox muy toolam bu yaatu bii ñun doyoon nañu sëkk aw laaj bu dul woon leneen moom wax na ni Serigne Misbaahu nee na. sëriñ Basiru Mbàkke moo ko jox wér du maxuus min allahi bi wasitati rasulillah sallallahu alayhi wasallam te nee na sëriñ Basiru Mbàkke bi mu koy jox da ko ni sëriñ Touba xaadima rasul moo ma ko jox te sëriñ tubaa yonent yàlla Muhammad moo ko jox waa léegi yow nga génn sa premier discours comme ni ma ko waxee léegi doon ay saaga sa deuxième discours comme ni ma ko waxee troisième discours bi laa dañ laa dénk ay wax rek nga di ko wax keroog ñu dencee Cheikh Mouhamadul Misbah léegi xam nañ ay mag yu nga xam dañoo taxaw temb ci ni turu Cheikh Mouhamadul Misbah yi du jóg te fay ko lu mu leen jaral ñoom ci fay turu Cheikh Mouhamadul Misbah jaral na lu ko ëpp ñun ci yëkkati turam bi kalimatu xaq ndax kàddu dëgg la day jëm kaw rek di jëm kanam rek insha allahu rabbi léegi nag ñooñu dafa am lu mu leen di wax ñu nekk ci sa ginnaaw di bind di la jox parce que xam naa la jàngoo li xamoo ko li nga yàq lii lépp kenn tegulu ko bokkal gàcce gi ak paay ni sa ginnaaw la ma la waxoon mooy dellusiwaat sa benn baay du génn di weddi waxe sëriñ Misbaaw ndax ñoom kilifa lañ ko defoon respect